muñ ak cant gan lépp loo mën di gis nangay sant xéewal na ngay sant kay muñ tawat nag ba ko muñ ak cant gan lépp loo mën di gis nangay ngay sant kay muñ tawat nag ba ko na sant xéewal di muñ jëpp lor ngirum gaay yi yàlla ngi nii soobu ko amaana nga gis gaay yi ñuy ree ko bég di sooxaale ay lor yu dul teggi ko dañuy dox di nëb boo ko nëbbi tawat te koo te koo gis ci ñoom mus cagar doy na ko lu dul doy di doy nag te luy doy di doy murit mbubbu daal ak tubéy doy na